mu ndaw ma tar suba teel ba muy am sept mois laa génn kër parce que uti meeg dëkk mik ta ak sama beneen doom ma tar suba teel moo a ah, taxaw dëgg la gis nga jour bi ma accouché sama neuf mois de grossesse mhm. ma tar laa njëkk a oo ci lalu hôpital lalu am naa doom dix dëgg la dëgg la ànd moo ma suba teel moo dugg moo quatorze heures ñëw xool doomam mhm. mu toog sept mois gisu la ah, ma boole lu ma neex ak lu ma nakari ba ñëwaat Fanta ba nga toogee ci télé bi da ngaa wax lu rafet la lu ñaaw xam lu tax xool samay doom di rafetal ëllëg. waaw. mais Adama démb sama doom dafa dem kër baas seeti papaam parce que xale bi da doon jooy ne dafa bëgg a dem ci papaam. waaw ma bi na ko jël mu yóbbu ko mu dem. Uh-huh. tey ba toogee dix ma yeewu ma ne xaaral ma jëli sama doom. Uh-huh. ba ma demee ma taxaw bañ naa ba duma dugg kër baas ndax bañ coow. dëgg la. benn xale na ko wax ma ñu jox ma mataar. waaw bañ ma indilee mataar indi lañu ay yérem ma xool ci yére mataar ni gisul takkul téere yi ma ko takkal dañ ko dindi. te Adamo c'est la deuxième fois xale bi heure moo ko demee yóbbu kër papam ñooy dindi téere yi. nga droit takkal ko téere kay. parce que Fatou Ndiaye moo nekk ci biir kër gi ak Bas ak magam bu jigéen. dëgg la mais Fatou Ndiaye ci boppam man Fatou Ndiaye ci boppam da ngay génn wala man moom laa comprendre ñëpp a ngi koy wax. Adama Fatou Ndiaye fu mu ne nii ba di jël appartement boobu yëpp moo ko jënd parce que lan comme liñ koy liñ doon def keneen mi li mu doon def ma jaay fa ba jaarabaas dinañ ko fasay wala yi tak fu mu ne nii Fatou Ndiaye lañ jël waaw man sax aw ma problème bu nañ ba ba ma génn mais samay doom dañ leen may jàmm Adama sonn naa gisuma ndey gisuma kenn sax jiwu ma ko nii ci àddina Adama ba ba ma sonn ci moom ci benn nekk laa commencé moom tey ba mu am

magam ji mbokk ndey ba ba mu ko fekkee ci bunt bi nii la ko def nee na tey leen dem perte ju plainte nii la ko def nii leen def loxo jaare yi lii leen toroxalee jaara kër waa kër bas cuun nii te jaara nit ku baax la lii moo tax mu koy soutenir xoolal nii leen ko def nii leen ko def nii nii la ko see def léegi nañ continuer sa réseau bi baaxul li dégguma ci dara. ci fii parce que réseau bi moo waaw. xam naa bas moo osé ne ko jaaraan ci buntu bi see fekk ma fa amul lu ma traité wul naan ma cagangaat. mais mais see warut wax loolu warut def loolu. Adama sama loxo yëpp la bas euh, la see jàpp. waaw loolu baaxul ndax Fatou Ndiaye Fatou Ndiaye mii xew barki démb. waa déglu ma soo gisee ma Adama Adama soo gisee ma war la sama frère nga. dégg ngeen naa jaaraa ngi nii mooy ex femme bu bas. question ko dama moo tax may rafetal. Adama fii fii laay génn sama émission la lu rafet. waaw looloo tax non yi yàggal yàgg nañu wax Bas ak Fatou Ndiaye. mais ga kaa bi moom bu ma ko toppee laa xam ne kon am na lu ci laxaasu. ah piste day dinaa Mohamed jaraloo ma ay fen instant bi ñu koy ñu ngi koy jàpp di ko jee naan ko parce takk. chaque jour mu ngi kër bas ba huit heures. xoolal léegi daa jënd ay meubles pour bas. xoolal loolu léegi nii dugal na di ma gaarawaale naan man maa man fitu ji jeeg ji parce que lan mi ñu dégg ci kër gi dégg may toroxal mu man mi ko jural ay doom. parce que benn néeg laa ko fekk. bu dëkk say-say. ndeysaan amul lu ma déggul ci amul ku ma xeebul ci bas. ndeysaan ma ne bas rek. ndeysaan mu ëmbal ma ci bébé jaañ ba takk ma. ndeysaan ku ne ku baax ma jël ko présenté ko. ndeysaan parce que su ñu ndeysaan man lal musuma ko jëndal maa daan jënd lal lépp maa ko daan jënd. ndeysaan layal ma tax suba teel. ndeysaan tey man la ko doon a jaara ana moo ba ba jox ay doomam lekk di leen jox ñu naan. jaara dinaa la ko fajal di dinaa la ko fajal ba nga kontaan. dinañ la ko soutenir te ku ko gis day yaakaar ne ay doomam ñu ngi lekk ba suur di naan ba mandi billahi mandi billahi talul dara su jógee ci mbedd bi di wanewu tey Fatou Ndiaye la ñuy di ma Zé dalaa wutalaal sax Zé dalaa wutalaal balay saaga ndey Zé li tax muy def loolu lan moo tax mu koy def xam nga jaara lan mooy problème bi da nga am ñooñu trop yow tamit da ngay bàyyi jaara foo toogee di wax nii rek di baaral di wax. ma kenn wane. wax bu fekkee ñoom loolu la lay def loolu da da Sénégal dañoo war a xam li ñuy dund ak ak li lay def mais boo toogee di lablame ci télé. waaw loolu baaxul. ñëpp dañ ma doon wax Adamo. waaw déglu ma xam nga dañ ma waay yow. kon ñoom lu ñaaw la ñu bëgg nañ fi dem. lii kay ñaaw na li wax ci Zia sax ba muy weñaar sa loxo beeg yooyu loolu ba gën a métti. waaw te see warul def loolu. Eh, yàlla léegi lii war nañ koo def jaara jaara mi nga xam ne catholique la daal di tuub dugg ci diine yi lislaam ngir bas cuun bas amul lu mu koy fay lu du toroxal di ko dóor benn ku tuub dugg ci diina yi lislaam bàyyi xeetam bàyyi religion am ñëw ci sa religion amoo fayam kooku rek da ko war a jàpp ba ba ngay dee waxuma la nga fase ko ñaar. muy jëli doomam ngeen di tekki ay téeréem ñett ngeen koy booleeg Zé mi nga xam ne ponkal la di ko dóor bay weñaan loxoom ba deretal ko def ko nii yow loolu jaara méritoowu ko ñeent ngeen koy jëndeek Faatu Njaay caga boo xam ne day dem kattante ji bu demee kattante ci ñag yi dajale xaalis bi ñëw jox la ko Faatu Njaay lu muy cagatu yëpp yaay ji la yaayu Faatu Njaay ma dëkk Tuubaa yaay ji moom moo bëgg Faatu Njaay di cagatu di ko jox yaayu Faatu du ngeen ko dégg mukk mu ŋàng xam nga Fatou daan muuru jàng alxuraan doo ko dégg mu ne ko dellu ca muuraay ga alxuraan ji nga nekkoon foofu la fii mooy yoon bu baax bi déedéet parce que Fatou commencé na di am xaalis ci cagatu bi di ko jox barki démb la ko jëndal iPhone 15 mu kontaan tàllal ñeenti bëñ yi di siñ ah barkaati démb la taxaw ne ko yaay jëndal naa la nangam nangam doo dégg yaayu faatu Ndiaye wax yaayu faatu Ndiaye ci boppam moo dul kilifa parce que jeune la kooba la comme ñoom mi ngi nii kii mooy yaayu Fatou xale la yaayu faatoo ngi nii kii mooy yaayu faatu Ndiaye jeune la xale la comme ñun ay jiin lay sol day dangal comme ni ko Fatou di defee yaayu Fatou day sol lu gàtt comme ni ko Fatou di sole ween yi da koy paccal comme ni ko Fatou di paccale maanaam yaayu Fatou Ndiaye mooy cagatuloo ay doomam faatu Ndiaye ci boppam yaayam moo bëgg doomam yi di cagatu di ko jox xaalis lii mooy dëgg du leen wax dëgg lii moo am lii moo am lii mooy dëgg il faut bu buñ dee waxtaan nanu waxtaan li nga xam ne nii moom mooy dëgg suñ dee waxtaan nanu waxtaan li nga xamante si nii moom mooy dëgg te bàyyi jaaxaan yi yaayu Fatou Ndiaye moo bëgg faatu njaay di cagatu di kattante di ko indil xaalis du wax mukk wax ji lu mu gis naa leen benn ñu def benn vidéo maam Bousso maam Bousso ñaawaayam boobu kanamam gi ne garabu dar kase ay la xam ñu yaatu muy mel ne arbitre bu retraité ak ba kanam bu rëy bi ne fa mu Ama Baldé muy moom gis naa ko mu taxaw naan waa am waatu de moo demee bay immeuble la nga fay ma samay cent waaye commentaire yaa ngi daqaar sa ndey bu baax ñàkk fayda ñàkk classe yaay ji nekk ci ginnaaw téléphone bi di nga kakaki yaay ji ñàkk fulla di cagatuloo say doom fii lu dul yàlla neen la te jël la fu doom yi nga dem liggéey wala nga bindaanu wala njàpp seen liggéey cagatu amul njariñ yaayu Fatou Ndiaye mooy cagatuloo ay doomam man maa ko wax te looloo am te yéen xam ngeen ne loolooy dëgg eh Fatou njaay bu demee kër jàmmoor ba huit heures ci góor parce que tey rek doon ko dégg ci góor bébé Binta génn na yéen a koy fàttaliku bu demee ba heure yooyu ci kër góor nekk fa ci kër góor sa kan la neex sénégalais